ñu rappeler ne Macky Sall président de la République moo décidé woon supprimer ko euh, en 2019 moo décidé woon supprimer ko Bim ko supprimer avancé woon ay raison dafa ne fast track la bëgg dafa bëgg affaire yi gaaw Manam bëggulon mo am intermédiaire entre mom remonté yi euh, ministre di def yobuko ci premier ministre premier ministre bi remonté ko ko moom dafa newoon dafa bëggone mu jóge ci ministère yi wala yenn DG yi ñëw directement ci moom mu traité dossier yi tey presque deux ans après gis nañ ne ñëwaat na ci décision boobu ne day andiwaat poste premier ministre. tigu Sénégal moo am niveau bu mu toll niveau bi nag pour te vous dire la vérité do des fois da nga naan dafa dafa yëkkatiku mais des fois da nga naan dafa wàcc c'est que dafa am lu ñoo reposer le pourquoi président de la république supprimer ko.

Euh, premier ministre mi ngi fi woon ñu bëri mënoon nañ dañ ci moom mu régler ko avant mu egg ci président bu ñàngee ba ñàng mu soog a ñëw ci président comme président nee na na yëpp ci ñëw ci moom xëy na dafa dem ba ci biir gis ne euh, loolu moo nekkoon lu gën c'est-à-dire premier ministre nekk écran muy waxtaan ak nit ñi muy problème yu bëree xam ne waroon na am mu koy anticiper nga xam ne du egg ci moom contrairement à ce qu'il avait pensé ne fast track affaire yi gaaw mu ñëw directement ci moom gis na ne doxalinu réew mi tax na ba président directement mënul gérer affaire yi. fi mu ko supprimer supprimer poste premier ministre ak fi mu ko defaatee fi mu ko bëgg a defaatee ndax mat na deux ans kon est-ce que bañoon ko supprimer bàyyi woon mu continuer noonu muy changer personnage am gënul woon mu ko doon supprimer mu toll foo xam ne nag bu la kenn calcul politique la ci pouvoir def doon calcul politique tam ci opposition opposition bi am nañ calcul Moi it moo yor pouvoir moo yor doole ji moo yor kàttan gi moom la ko yàlla jox moom it am calcul boo xamante ni calculam Quand lay def kon su fekkente ni bëgg naa indi la mu bañoon la mu dindi question day taxaw lan mo tax président bëgg indi li nga xamni mom moko moo ko dindiloon su boobaa opposition bi dañ naan ah kon boo gisee mu dindi ko woon am na calcul bu mu bëggoon am na ay ay loi yu mu bëggoon a teg parce que nit ñi kenn moomu leen nag dañuy xalaat boo seetee bi mu dindee poste premier ministre bi bari na fi loi yoo xam ne teg nañ ko fi askan wi ànd nañ ci ak ma ànduñu ci ñoom ñoo xam l'essentiel majorité ba daal li ñu mën a xam mooy xëy nañu xëy dëkk bi bëgg a tàkk valider nañ am na yu ñu valider ci ay institution loolu askan wi ànd nañ ci wala déet mais nag am na beneen jàngat bu ñu ci mën a def mooy président Euh, Sénégal nek nekk euh, moy présidence de Union africaine bi 2022 euh, donc le fait que président Macky Sall war nek président Sénégal gère Union africaine dina tax ba jot bu mu am pour gérer Sénégal xeyna y jot bobu dina am parti bu mak bu béré bu muy jël pour Union africaine l'exercice de la présidente de l'Union africaine dina jël temps bo xamanteni xëy problème yi bëre bu dee nekku fi il faut mu nécessiter présence au premier ministre pour mu mën a continuer action gouvernementale boobu donc xëy na loolu moo tax président au lieu de mu mu mu bàyyi noonu persister ci ci ci ci ci gëm-gëmam mu ne non comme que man 2022 dama war a nekk président Union africaine ma jël poste premier ministre ma jën dénk ko sama yenn prérogative yi nga xamante ne su fekkee nekkuma fi moom mën na mën na mën na doxal loolu tamit jàngat la boo xamante ne mën nañ ko ci def mais dans tous les cas il faut ñu xam ne président moom lañ dénk pour mu initier politique de la nation. kon cela veut dire que ni stratégie am la en tant que président politique am la en tant que président muy xool moom yoon bi nga xam ni fa la mën a jaar pour li mu bëgg moom mu am ko il faut que nit ñi xam loolu il faut que nit ñi xam ni Macky Sall li mu bëgg moom moom la yow boo fa toogoon li nga bëgg loolu ngay def man boo fa toogoon li mu bëgg loolu laay def. technicien bu fa toogoon li mu bëgg loolu lay def est-ce loolu mooy njariñu askanu senegal question bi foofu lay taxaw kon premier ministre man de bu ma nekkoon ci conseiller Macky Sall du ma ko dindi Abdou Diouf amoon na ko Abdoulaye Wade falu na bi muy jeex ba ni muy daanoo yëguma fu mu ne supprimer na ko ci sama déggin bokk ak li ma jot a dégg ci moom moom it bu doon may bu doon man la dama koy bàyyi fa mu nekkoon ndax mi ngi bëgg koo delloo si waat cela veut dire que ni poste la boo xam ni kenn waru koo dindi ndax armée bu ne ah bu bu bu fa général nekkee itam war naa am koo xamante ni bu ñu ko gisul rek moom lañu war a jàpp ni kii mooy taxaw taxawaayu général bi kon nag euh, euh, su démb doon tey duma ma bay delloo si waat moom la sénégalais yi votel ne ko lañ jox lenge yi pour nous diriger C'est à de rendre compte en 2024 Ce fait que les Sénégalais d'accord ci nous nous nous nous mais le plus important c'est que que sénégalais les prérogatives, ñu nous nous nous en toute lucidité au profit exclusif des citoyens sénégalais. su des moudons, nous supprimer calcul politique calcul politique amna ci ndax bari na ay loi yuñ fi tek après biñu ñu premier ministre bobu yo xamni valider nañ ko doxal nañ ko mais nañu xol ñom bo xam pouvoir la mo xam opposition njariñu askanu Sénégal mo ñëppal doole téeméeri junni yoon soxna si loolu nag lu jara baye xel la machallah est-ce que yaakaaroon ne suppression bobu daf daf ko defoon am lu ci doon xaar. Tay lu tax mu indi ko dafa jotul li nga xamne mom la doon xaar ci suppression boobu wala mu nek tâtonnement. wa xam nga suppression mën na nek tâtonnement mën na ne nee la calcul mën na ne parce que su fekente ni man gis na ni limay liggey xam nga liggey calcul la rek te mak sal ñiko wër da ko bari ñiko wër ño xamni wa opposition be tax may wax ndax bu mom la limu bëgg doxal ragal naan dina ko doxal ndortuna lolou

njuum njuumte la ci biñ ko supprimer léegi dama la benn a bu garaaw laa lay wax ma nga bàyyi xel li ma lay wax delloosiwaat nañ ko da koo bëgg a delloosiwaat xel yi day tukki day xalaat de da ngay xalaat Macky Sall bu ko delloosee kan la fiy teg loolu xalaat la de maa ngi wax lu garaaw nag bàyyi ci xel Macky Sall bu delloosiwaatee poste premier ministre mais kan moo war a doon premier ministre kan moo ko war a doon. waaw mais poste premier ministre xam nga nit ñi ku ne ak sa xalaatu bopp nit ñi ku ne ak sa xalaatu bopp nit ñi moomu leen xam nga yow fi mu toll nii bon yaa ma laaj nag yaa fek fekk fii ma toog jàpp sama mun nga may laaj ci ay affaires yi comme laaj nga ma nag ñu bokk milieu bi ñu waxtaan maa lay xamal ni la nit ñi kenn moomu leen Macky Sall ki muy xalaat moom moo ko xam mais man am naa droit xalaat yow am nga droit xalaat am nga keneen am na droit xalaat mën naa mën naa am attention mën naa am xalaatul bun Abdoulaye Dione Abdoulaye Dione non Macky Sall xalaatul bun Abdoulaye yaa ngi dégg man kay ba ma doon laaj dama naan la est-ce que xalaatul Idrissa Seck est-ce que xam nga Sénégal dañoo naqale waxal est-ce que xalaatul Idrissa Seck mais bu nu Abdoulaye Dione góoma ni Macky Sall dina ko xalaat góoma ko ñamal na ko ba pare mais est-ce que xalaatul Idrissa pourquoi pas parce que comme actuellement nii entente am na déggoo am na seen i seen i mbir déggoo na ah mën naa mu xalaat Idrissa Seck mën naa am tam mu xalaat keneen mën naa mu xalaat keneen mën naa mu xalaat keneen mais man damaa joxe rek sama xalaat boobu sama opinion laa joxe yaa ngi dégg léegi bu ko xalaatee ba teg ko loolu après loolu lan mooy xew moo la wax ni Sénégal dëkku calcul la ku ne ak sa xalaatu bopp ku ne ak sa gis-gisu bopp ku ne ak li nga jàpp ni looloo war a am ak ni nga ko jàppeek ni nga ko xalaatee moo daal soxna si calculam la gis-gisam la yaakaaram la jàpp na ni xëy na bu ko delloosiwaatee mooy gën a doxal politique am parce que nag nee naa la ku mu doon yow di yow ku ne yaay man yow mi boo nekkoon président de la république yaay seet nooy seere sa réew say yaa koy def mais man dama ni comme xalaat ne nii man nii laa ko xalaate woon ba ñu ne dindi nañu poste premier ministre man li ma ñu ko def sama xel mooy mooy président bu buy faluwaat keneen ku mu mën a doon di nga delloo siwaat poste bi xala réew yi ñu ëpp doole yëpp am premier ministre premier ministre warul ñàkk ci gouvernement lu nit ñàkk di xam ñàkk di xam xam ni poste premier ministre warul ñàkk ci gouvernement lu waral nag mu supprimer ko jaaxal na ma jaaxal na la jaaxal na keneen mais man gisuma woon mu supprimer ko xëy na nag ka ko nekkoon nu mu tudd euh, Abdoulaye Dione mooy ki nga xamante ne moo joxe Euh, élection yi passé